ci turu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi sonn ci état du droit ñu gërëm nag suñu ay député féliciter leen rendre leen hommage massawu leen ci coono yi nga xam ne moom la ñu daj keroog te man de damay sant yàlla parce que def naa 15 ans assemblée mais dama ne leen loolu boo fa fekkoon dañ ay lay ndax du dëgg du yoon te lu dul dëgg du yoon rek moom la ñu président Macky Sall habitué ngeen ñëw tey wuy yeewi askan wi yeewi askan wi. opposante am yëpp groupe parlementaire am groupe parlementaire boobu moom laa doon gërëm léegi ay maire am ay conseillers am yeewi askan wi ak ay candidat yi war a dem le vingt cinq février yeewi askan wi ak ay candidat am spolié waaye spoliation boobu lu tax ñu naan dañuy installer le chaos yeewi askan wi su fekkoon ne buñ ko attalee ñàkk rek mu installé la kaw kon mu def ko en avril 2022 en avril 2022 ku nekk xam na ni arbitrairement la ñu rejeté suñu liste taxul ñu installé la kaw bi ñu protesté ñu may ñu liberté lu rare le 8 ñu def une mobilisation de tonnerre àddina si yëpp di ko wax mayetuñ ñu ko le 17 bi ñu bëggee mobiliser les forces vives de la nation ñëw seet si ñu ñëpp ñëw wax ak ñun acteurs yëpp ñëw wax ak ñun dañoo teg ci suuf parce que ñun luy yàq Sénégal ñu ko def luy yàq démocratie duñ ko def loolu moo tax tey du ñu nangu ñuy bafouer la démocratie yow askan wi est toute forme et contre toute forme de report surtout quand on doit violer les dispositions de la constitution ñun dafa am ñaari président yoo xam ne dañ leen bëgg nekk nañ fi ba jeexal muy président Abdou Diouf ak président Ablaye Wade président Abdou Diouf dañ ko digg dañ ko tuddee woon gardien de la constitution président Ablaye Wade ñu tudde ko le démocrate waaw ñooñu nag man di bëggoon naa ñu wax ma door a gëm bu nu waxoon ma gëm leen waaye dama jàpp ni comme ñoom dañu nuancé te loolu lañ leen caractériser dañu wax ak président te président jotul message bi Abdou Diouf daf ni président ni ma nekkee woon parce que mag buy yedd sa morom danga naan ko bu doon ni ma na ni ma nekkee woon gardien de la constitution noonu nga nekkee gardien de la constitution garder la constitution préserver la constitution sàmmal la constitution loolu la ko Abdou Diouf wax président Abdoulaye Wade dañu ko defal démocratie démocratie booy boo jeexalee dem parce que rendre nañu lu depuis le 3 février le peuple sénégalais dans toute sa globalité s'est dressé comme un seul homme. Le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'on use de quelque subterfuge que ce soit pour se maintenir au pouvoir. Le peuple sénégalais se mobilise et se mobilisera davantage. C'est pourquoi Yewwi Askan Wi, la sentinelle de la démocratie ne peut pas en reste Yewwi Askan Wi se dresse se mettra en face de ce pouvoir parce que y aura imposture si au 2 avril il ne remet pas le pouvoir il y aura bel et bien imposture on, on se mettra en face pour arrêter cette imposture donc président Ablaye Wade ak président Abdou Diouf ma bëggoon dégg seen kàddu lool ndax Sénégal sax dañ leen namm ndeysaan bëggoon nag président percevoir message wax ko ni ko président yooyu dañ fi nekk ba jóge fi coup d'état mosu fi am te ñaanuñu ko yàlla wax ko ni ko président yooyu dañ fi nekk ba jóge fi parce que xamaguñu ba léegi organisation yi muy wax jihadiste mosu fi dugg te nit ku nekk da ngay seet sa nawle ci ki nga wuutu wala nga seet sa nawle ci ki lay wuutu nawle boobu nag moo tax ñu bëgg ko wax ni ko moom moo doon président assemblée ci onzième législature en 2007 pour que mu mën a nekk ci onzième législature au moment u certains pays africains nekkoon ci ay troisième législature ak quatrième législature c' est que Sénégal dafa amul woon coup d' état ba tey je touche du bois ñoom ay ñii nekk quatorzième législature Sénégal di ko bàkkoo mu nekk président assemblée ma nekk vice président ñu dem parlement européen nit ñi di ko takk ci di Sénégal nekk ci à ce niveau de démocratie ñu dem Burkina Faso Marc Kaboré invité ñu ñu di ko tagg ci li Sénégal nekk exemple ñu di ñu invité à travers le monde parce que Sénégal pays de démocratie la waay waay waay waay waay waay boo lekkee ci ndab bugal ba mu jekk loolooy teraanga ndax da nga bëgg keneen effectivement ñëw bokk ak yow ndab ndab bi loolu moo tax yeewi askan bi nekk ci waru garam waru garam moo di ñu ànd ak peuple sénégalais bañ bépp report ndax li nga xam ni moo xew ci yeewi askan wi encore une fois exception wu yeewi askan wi la est-ce que exception wu yeewi askan wi la mooy peuple bi na la ñor exception wu yeewi askan wi mooy fàtteel sa bopp exception wu askan wi mooy xamuñu luy opportunisme exception wu yeewi askan wi mooy li nga xam ni moom la peuple bi bëgg parce que peuple bi benn baat la am peuple bi muñ na les restrictions de liberté doon xaar le 25 février peuple bi muñ na injustice yi am doon xaar le 25 février peuple bi mës mu muñoon na justice non équitable di xaar le cinq février peuple bee ngi doon penser ses plaies peuple bi moom mujjoon na la cherté de la vie au même moment muy gis bambula boo xam ni dafa xam ni ñu ko def xamuñu lan mooy priorité des dépenses publiques peuple bi mu muñoon na li l'inefficacité des dépenses publiques peuple bi mu ñoon na ces prisonniers yi nga xam ni pour la première fois au Sénégal mille cinq cent prisonniers politiques peuple bi mu ñoon na le chef de l'opposition bi nga xam ne ñu ngi ko tëj sans raison peuple bi mu ñoon na xañaate yi peuple bi mu ñoon na refus de participation bi nga xam ne ku nekk am na ci droit suñ la téyewul ca parrainage ba ñu nga lay tëj wala ñu lay wutal yeneen yoo xam ni euh, mérité woo ko kon peuple boobu tey moo dressé wu ak yeewi askan wi yeewi askan wi di leen dig ni leen ñu ngi ci seen wet yeewi askan wi di leen dig ni leen dinañ ko xeex dinañ ci ànd ak yéen te nag taluñu dara am na luñ ñu bërëxal léegi di ñu ko laaj loolu dalaguñ ko rapport bi la ñuy wax pour que rapport boobu ñu acté ko le vingt cinq ay élection am le deux mu passé le témoin rapport boobu la ñuy wax li jënti ko ba pare door a lijjanti lenn loo xam ni ñu ngi koy wax pour nu divertir ñun jàpp nañ ni leneen lu ñu fi wax rek dañuy divertir ñun nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant.